الحمد لله الحمد لله الذي مدح حبيبه المصطفى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم وقال مخاطبا إياه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على أحسن الناس خلقا وخلقا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والذي من أدعيته المباركة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنها إلا أنت وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بقي نجي سنت سنو بروم ميغا خامني ليشي سي كاتانام لمن امي دخ اذا اجتمعت القدرة والارادة ولم يحصل التوفيق فلا نجاح kon li tawfiq ilahi la kon ñu ngi sant suñu borom mi ñu ko motalil di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamni yàlla daf fi teggi lépp lu nit di tagge moroomu nitam waye xol jikko yonent bi ba mu doy ko muniko wa innaka la ala khuluqin azim sen maam cheikh alxaaji malik رضي الله تعالى عنه وخني نروم ثناء المصطفى بعدما أتى ثناء من الهادي عليه جميل كندو سنو غورغي دينا سي نيو نيغي نيو بو باخا باخ سانغ يو تيدي توك في سوني ما دي وقتان لو ما سن كانام داماي تيت داماي جخاسو ñu ngi nuyu bu baax suñu bay bi tok Mouhamadul mustafa si pap mustafa si gora diko ziyara diko jox waccu wayam ngeen bal ma li tax ma jëkke ci mom dina ci ñëw ndax mak la ci wal way way jur la ci wal bay Mor xujja si mi ko jur Maam Mor xujja mo ñaanal Cheikh Alxaaji malik bu mu genné aduna kéro waaye way juram mu jigen di suñu bàjjan di soxna Nafisatu si malik kon mak la ci wal wow waaye kon ci jataay bi moo ñuy fi moo moo bàyyi di mag kon ñu nuyu ko ñaanal ko yàlla di nuyu bu baax a baax alxalifa sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour di ñaan suñu boroom yàlla mi ko boppam ba teg ko fi mu ne yàlla na ko téyel boppam ba mu yeggale kenn du suñu boroom yenn yi pexe eggu ci yàlla lay soob te ku mu pareel boppam rek téyel la boppam kon ñu ngi ñaan suñu boroom ci kattanam ak mbaaxam yàlla may ko wér yàggal ko fi naal yi mu sumb yëpp yàlla na ci yegg ñun ñëpp ñu fekke waaye dara gënu ci rëy nag jumaa ji nga xam ni fii la góor gi toogoon bés wax ni loxo yi mu yeggee rek kontaan naa ci Cheybatal Hamdi moo ko waxoon kooku ñaan la woon xamoon na ni du ko fekke moom waaye iñaanul nag mu ni loxo yu mu fekke lu mu yu mu àggee rek sant ci yàlla loolu wa ci waxu kilifa ñaan la ku ay mag ñaanal nag teg la ci siraatal mustaqima ku la moytuwul sànku Sénégal bari nañu wax torop te 18 ku ne la ñuy dugg il faut faire très attention code de la route bi xam da ngay romb ñun la tableau bi interdit de tourner à droite la bii interdit de tourner à gauche bi ñu ni la interdit de stationnement la koku ci walu aduna la walu walu haqiqa da ngay daw bu mbeuk sa bop xamni ni ndekete yaa ngi ci bir sens du ben kon ñu ñaanal ko yalla. te bayyi xel nag te nangul yalla yen yi soxor la Sénégal liko yak moy soxor bu ne jam taxaw wax weddi bopam ci bir ciir yi yalla koy joxe kon ñu ngi koy ziyaara di ko jox wàccuwaayam te di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla rakkam di suñu sëriñ Cheikh Al Hadj Malick Sy Maodo moom itam yàlla na ko fi yàlla yàggal ñu wettalanteeg ñun ñun itam ñu wettalanteeg ñoom damay bañ ñu def ko yëfu wolof nag léeg-léeg nga dégg ku la ni yàlla na ngeen fi yàggu gunge ñu ba ci kanam mooy su dem jotee ngeen dem <laughs> te yàlla doxul ci logique moom yàlla doxul ci logique ci bëgg-bëggam rek lay dox ci machi ato waaye olof moom jàpp na ni dañ koy wax sax ku dem mag dem ku demul mag dem attention yëf yi du foofu de ku nekk waajalal sa bopp ndax xata ida balaga ashuddahu wa balaga arbaina sanatan rek la wax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 pour wax la bàyyi xel bu mu bàyyi xel yàlla moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di leen bëgg nag suñu sang yooyu bés bu ne nga dégg lu nit wax jëme ko ci ñoom te doo gis ku leen fi tane ci réew mi mukk ilaa yawmil qiyaamati li ñu li ñu li ñu gàlloo mag mu bejjaaw moo ko teg ci biti mu àgg suuf ndax du ko àttan sëñ Moustapha Sy Jamil dama mës a dem seeti ko sa mbàppa yónni ma fa ba may génn di dem mu ni ma Habib na ngeen xam seen bopp na ngeen xam seen bopp te ngeen xam Cheikh Al Hadj Malick mooy kat mu ni ma xale bi mujj a juddu tey ci biir kër gi bu xamee boppam yan bi mu amee boo ko tegee mag mu bejjaaw ci biti mu àggu suuf ndax du ko àttan yal na yàlla yokk seen leer di nuyu bu baax a baax suñu kilifa yi ñu fi fekk سيد الشيخ احمد تجاني اك سونو كليفه غي دي سيرن بابكر عبد العزيز موم شيبه الحمد لله كو تودي ليغي بركي ديمب تي دكار دا فام سما بن خالد بوما وو ني وقتان خامول صاح سيرن بابكر مسوكو غيس من ما حبيب سي دوما ديمبال غير جيم يالا رك يوبما با سيرن بابكر ناكو غيس رك بوما كو صاح نويو والله العظيم لول لا ما واخ تا بارينا تي ني اي موروم damay wax wati wa won na ngeen ko moytu ndax du len wax moytu leen ko géej ak dex du benn de Tiwaawan lu ne lañuy ñuy yëkkati di wax mais attention tekkam gi ak noppeem gi moytu leen laa leen di ñaan man duma bëgg sax di ñëw ci seen xadara lu bare ndax ni ma mel a tax bu ma sañoon mel na yéen ndax mbaax ndax wàcc li ma gën a yéem ci ñoom mooy wàcce seen bopp gaa yi ñaar yàlla du leen may du ngeen ma laaj kan ak kan mag mu bëgg daraja ak xale bu dul wax dëgg mukk mag mu bëgg daraja bu yàlla di dénkaane teggi ko xale bu dul wax dëgg lu coow la bari bari bu yàlla dee may du ko may parce que lu mu ko may mu senn wax ko ci biti te dañuy wax ni ida anta lam taxfaz li nafsika sirraha fa sirruka inda annaasi afsha wa adyaw xamuloo ni bu ngeen dee dégg ñu naan sirru sirru sirru bu weesoo ñaari nit dootul sirru boobu leneen lay tudd léeg-léeg léeg nga gis mag mu yore kurusam ni la tur wi day nangam ak wecceeku ko boobu la ko ñàkkee sëñ nee na accident ci otoog avion lañ ko séenoo waaye ci kurus yi la ëppee ci jamono bi ñu ci bare jaamootuñu yàlla ngir yàlla te yàlla du nangu ñaar santage ak marchandage yàlla nanguwu ko Abdoul Aziz Mbaye yore turam jox la ko ni la Habib tur de boo ko wérdee dootoo ñàkk dépense nga jël ko toog yàlla taxatul dépense tax di nga wérd ba dee te doo gis dara léegi nag dañ koy wecceeku nag di ko photocopier di joxe li xew ci Sénégal kenn xamul lan la di nuyu bu baax a baax mbokk yu baax yi nga xam ni ma dale ko ci sama ndeyjoor Habib Sakho ku ko gis rekk sa xel dina dem ci ñaar ba ñett Baye Baye Tamsir Sakho yal na yàlla yokk leeram ñu nag moom la woon ba yàlla ñëw ak mbiram mu jiitu ji yal na dajeeg yërmande yàlla ñun ñi fi dess yàlla yagal ñu fi gam bu tero xel yëpp dem ci Baye Ibrahima sax damay wax ni tante yëpp ko amel njukal gor gogo xilaasu zahab bi limu ci def gawma nit defati ko fi ila yawmil qiyamati kon momitam buñu ko gisé tey jii mu nek ci kanamu njabot ga yàlla na fi yag ta sut len fan ci barke yonenti bi ak ñi nga àndal ñep foo tourné rek di nga gis ko xamni amna lula takke ak mom waaye ku ñu jaarul ci sa itam nga jéggal ñu ko xam ne jataay bee yàgg te wér amul te mu ngi guddi faw ñu sakkanal suñu kilifa yi waaye li ma bëgg wax ci commencement ala xablal mawaddati jaddidiha fa fi tajdidi naxya yëkkatil waay تهدديها ففي تجديد نحياها المودة جدديها ألا حبل المودة جدديها ففي التجديد نحيا كل حين fii ñu tëdd seen tëraay bu rafet bii ñu tëdd fii looloo ñu fi dajale tey Covid bi jaar na fi yàq lu bare ay at a ngi nii kenn gisantewuloon sa morom kon bu ñu demee ba dajewaat ci moom ala hablal mawaddati jaddidiha ma sha Allah ففي التجديد نحيا كل حين يال نيوكو يالا فايل خمغا بوي واخ سي شيخ الحاج مالك غن جابوتام دا فاي ملنا داغا خاوا باربارلو نون تبارك الله باربارلو تخو نيو جوب waye lu mu am rek doy nañu man damay wax ni bu yowmal qiyamate ak limay deung yep nak luma yalla di may nama ko jaaraleel ci مباح ويسول شيخ الحاج مالك نيو غوما تي دومي دي شيخ الحاج مالك لاي واخ يالا نكو يالا فايل سانخ بي نين دي واي سما يارام داونا سما رنغون تورو نا ندخ تايتو مكو كو يالا ديمبالي لا مودو كو يالا ديمبالي لا daw góor borom xam-xam ak boroom jàng du benn déedéet boroom jàng coow laay bare waaye du xam fu mu teg tànkam borom xam rek xam fu muy teg tànkam nga xool Cheikh Al Hadj ak li mu bind yépp benn bu ci nekk boo ko jëloon bu ñu kenn waxal ni nangam la bind wala déedéet mbindam ëpp na nit mbindam ëpp na nit mu bàyyi fa yépp nag ñëw ci burdatul madih foofu ngay xame ni nitu yàlla soxor baaxul ci moom ak iñaan jàpp ni yow rek a fi nekk xamoo li xew fa leen baax yam burdatul madih bii nag ma yëgal leen lenn xaw ma ndax nit ñi xam nañu impact bi mu am ci àdduna laa wax wala déet waaye ku gis mbokk yi ak li xew ci réew mi guddi yi lu waay di ñaan bu yeboo nga profitoo ci ñaan loo ci ñaan te muy dëgg ci yow yàlla nangul la ko boo dégloo xasida bi duma tudd bayit yépp wala waaye am na ci yoo xam ni daw na yaram te yaakaar gënu ko rëy moom burdatul madix bii وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر دون الله من من دمي خلاص سما بوب سانك دما توغك بشير سما دوم اك باب عبد ني كوي ريمي نونو ديكو جانغ ما دغلو لين دغلو دغلو بامو ياغ من لين يين لو نين دي واي نين ما باب بوردو بي لا نيي واي من لين اه سين دون لا دي bu yóbboo ngeen jëm cee jàpp te góorgóorlu waaye déggal wax bi waqad atayna zunuban laa idaada laha lakin afwaka laa yubqi wala yazaw maag daaw góor mbaay bu yowmal qiyaamatee bàkkaar yi kenn dul mën a tudd boo ñëwee ba tiit jaaxle jàpp ni yàlla dina defante ak yow loo xam ni waaye mu jékki-jékki wala ba nga ñëw mun la jéggal naa la ndax sa sopp gi nga sopp sayiduna muhammad yal nañ yàlla may cofeel gi ñu am ci yonent bi ñu dund ko ci biir ak ci biti wa rahmatun تكسو من الأنوار من كان عاريا محمد ورحمة وتقصو من الأنوار من كان آريا بالله سيد القوم أنا محبة يمن وأمن ورحمة يبلغ من الأنوار من كان عاريا kooku mooy cheikhul qawmi gars yi bu leen werante waay bu leen weranteeg waxkat yi waay borom borom caq caqu wurus dafay moytu boroom borom battu neen waay ku ne xam nga ku la mën kon bu ñu foyee li ñu am damay faral di wax suñu doom yi nga xam ne ñu ngi màgg te war a topp ci gannaaw ñoom Abdoul Aziz Baye ak ñoom daaw góor ñi bés bu ne bu ma dajeek ñoom dama naan leen bu leen foye seen bopp bulen leen doyadi bulen late masla bu mu len jaral ak bëgg lu neex nit ngeen bàyyi way Cheikh Al hadji malik di way wonen way jaru ko dara jaru lu masla bari bari bari bari xam len li ngeen am waaye bëgg lu neex nit dem ci barab ni dama bëgg lu rafet ba doyadil sa bop ya koy yek mukk sëriñ Cheikh nee na bu leen doyadal seen bopp ba mel ni dañoo amul ñu nit ulama yoo xam ni seen xam nga daa doyul bu kenn doyadal seen bopp ba mel ni dañoo nit ulamaa yoo xam ni seen xam ga daa doyul wa allimu nabiyul atbaa qaala bi daa abul xabib alladi léppam da ko rabatal jazaa wa anna ilaa wa ajji xayra jazaa mawdo maadaama sàmmay wëttal subhaan ba ngoon mu jofal yeete ne gindeena réew maa ngi ba kenn dafatul sharqan wa garban ulama fenn desul barakallah ngi noonu kon sama baay Ibrahima Sakho daan naa dégg muy wax ni ñàkk ko wala am ko te xamoo te xamoo ko. ñàkk ko te xam ko moo ko gën. ñàkk ko xam ko moo ko gën. yal na yàlla yokk leeram. kon nañu xam li ñu am lan la. sëñ Babacar sànq ba léegi ci waxinam moom ak ñeewante bi mu am ci yéen mi ngi waxtaan rek pour bëgg ñu delloo si suñu xel xam ni bu ñu fàtte mukk li ñu war suñu digganteek barab bi ñu toog bala ñuy xalaat. jaami yàlla yu baax yi fi tëdd nañu xam ni néegu yàlla la te kenn ku nekk war nga góor góor lu def yitte jàng aadaabul masjidi bu Cheikh Al Hadj bu ko defee rek dina yomb lool ci bu ñu dajee te comportement yi ñu war a am yàlla bu ñu yàlla topp suñu ay manqué manqué ak suñu ay rëcc rëcc ci barke yonent bi sëriñ bi dafa ma yónnee ndaw ni naa ñëw waxtaan si ma ni kilifteef di ak ndigal bu jógee soo mënee defal soo mënul defal waaye man am na jamono yoo xam ni dama ni woon rek damay faf noppi sax xam ngeen lu tax réew mi ñuy wax Sénégal dafa yéeme waaye noppi nag duma ko def moom ci kàttanu suñu boroom ma bëgg a wax nit ñi ni leen kàddu gu may yëkkati du seet lu neex nit walla lu ko naqari man ëppale naa sama bopp loolu su may wax yàlla rek laay gis mën na am nag nit dégg ca lu la arrangé wul mën nga commentaire defal lu la neex ci libre parce que wax ji moom bu xasee ba génn kenn ku nekk mën na am nu mu ko gisee waaye ki réer ba xamul fu muy teg tànkam nag te mooy mu murakkab mooy insaanun laa yadri wala yadri annahu laa yadri looloo yàq Sénégal nekk ci réseaux sociaux yi ku ne nga daggal ko saaga te yaa ngi bàyyi sa papa sa yaay ci biir kër gi de problème yi ñu am doo ko nettali mukk fekk doomu jàmbur joo xam ni gor bu set wecc la nga nekk ci deram fanaan ci guddeeg subaak ngoon ak yenn yi coxor la rek yenn yi coxor la Serigne Cheikh waaw Serigne Cheikh mi toog toogaayam nga ni dootu fi am yére bu baax bu mu sol wala lu mu am dañ ko ko jox dañ ko lawraataale sa normal <laughs> dañ ko lawraataale du bokk ak ku ñu lawraataalewul gaa yi yi ci des coxor la rek mukk sax benn taximaan daf ma mës a yeb ca Dakar ni ma sëñ bi ma ni ko ah, mun ma dégg naa ñu naan la Sida ma ko ah, mun ma rikk waay na góor góorgóor lu xam li ngeen am dootu leen ñàkk dépense ak mbubb mu rafet ma ni ko ah, mun ma dootu leen ko ñàkk ba àddunay tukki waaye gars yi boo solee mbubb mu rafet sax ñu ni dañ ko koo sarax wala dañ koo sàcc wala nangam ak nangam. attends <laughs> yëf yi demewul noonu ah. jël yi yu ñaaw teg la ko. ñaaw a ñaaw teg la ko te wallaahi wal quraanil aziim waxuma leen yéen ñii. ñun ñii ci suñu bopp ba ci suñu doom yi tuuti yi kenn ku ci nekk la muy def ci lu baax rus na ko nettali faw ñu xam loolu delloo si xel yi delloo si sago yi ngeen baal ma nag taalibe tijaan moom dañoo féex bu sëriñ bi solee mbubb mu mel nii léegi suba nga gis ñëpp dem wuti ko boo ñëwee toog ci wetu sëriñ bi bu ñu la nee non fii dafa xat nga ni daf may jaay affaire ah, yàqu nga bu yàgg léegi léeg nit ñëw temps yële dama toog benn waaye jóge ca fu sori xaw ma fu mu jóge jaar ca ay numaat yi ca sama palanteer koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ ma ni patt rek rek mu commencé di jàng al alquran ma bàyyi ko bu mu daaneel ma ni ko inna alladina yunaadunaka min min waraa ak aktharuhum laa yaaqiluun walaw annahum sabaru xata taxruja ilayhim la kaana xayran lahum mu ni nem ma génn di ko laaj ma ñibbi na ma ni ko waaw noonu lay demee kon nañu bàyyeek nañu bàyyi suñu xel ak suñu kilifa yi ñu am lu ñu wàcc wàcc seen bopp nañu xam fu ñu yem dañu baax rek yenn yi nag xaqiiqa la te xaqiiqa sëriñ Cheikh Tidiane si nee na boo ci ñëwee loolu laal mu dëgër moom lu ñëpp di tudd te kenn firéegu ko mooy xaqiiqa li tax ma ni woon dootuma wax dama am benn bés ma toog gis benn xasida bu ma neex waa ji di wax ni yusaa u fahmuka يساء فهمك بين الناس أحيانا فيخلقون لك الأوصاف ألوانا فقد تكون ملاكا عند بعضهم وقد تكون ببعض العين شيطانا طبائع الناس شتى وهي أمزجة ولن تطيق لها بالفهم إمكانا من يكون فلا يغرك فلا يغرك مدح لو أتوك به ولا يضرك ذم كيفما كان لا يعرف النفس شخص مثل صاحبها فكن لنفسك في التقييم ميزانا ما شاء الله ما شاء الله waa ji nee na dama dem ba ci biir sax dama war a noppi ndax léeg-léeg ma wax ñu interpréter samay wax te ñàkk ma xam rek a tax ñu koy def Sénégal ñooy àtte nit ba dëkkal ko ci àjjana wala safara te mosuñoo gis waa ji parce que li ngay wax neexu leen rek li ngay wax arrangé wu len ñu ni waaw lutax muy waxe li lutax muy def ni lutax muy def ni waji ni nak kon nopi jotna ndax comme suma waxe ñu interpréter jàpp ni ni la mel ni la mel ni la mel te yàlla xam na ni meluma nonu ba pare ñu tek ci nak dima juger ba dëkkal ma ci ay néeg yo xamni wala ñu jox ma jikko yo xamni man jikko woowu ma nonu neena amna ci ño xamni bo len gisee dañ lay yëkëti tek la ca kaw waaye am na ci ñoo xam ni bu ñu la gisee jàpp ni yaag seytaane iblis yéen a yem wala iblis saxala tane Sénégal nañu delloo si suñu bopp mbokk yi bés bu ne ma wax ko dafa am benn wax boo xam ni parce que Sénégal nañu waxante dëgg pom yi bare na léegi waxante bu ñaaw bare na te gis nga man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb ay aalantu lahu anni muhaaribun la nañu téye làmmiñ yi ci deru góor ñi ñu ko teg di yàq seen der taxamu loolu lu ñu fanaanoo ñoom biig lu neex waay wax soxor iñaan wor gisanteeg nit sëriñ Cheikh a ngi nii toog ci sama wet di sama mag di sama kilifa ay micro tax ma toog di wax loo xam ni wóor na ma ni du dëgg kenn yéesu ma kenn yéesu ma su may génn rek di jëppi sama bopp mais léegi nag li ñu daan wax conscience sax nag la nit ñi rey ci seen bopp dee benn yoon. mooy damir bi kenn amatu ko. voilà dafa am solo. léeg léegi nga dem bay tëdd guddi Pape Abdoul Aziz nga xool jàkka ji ñi nga fi dajee loolu ñëpp ndax am na koo ci ëmbal dara luy safaan wala déet am na solo parce que yëf yi nekkul ci julleeg jàpp rek aj màkkaak yii rek déedéet dafa am foo xam ni fa yàlla di fanaan mooy fii xolu doomu aadama ku nekk bala ngay tëdd war nga xool sa xol ba xam ndax Abdoul Aziz Baye bi ma dajeel wala daaw góor mbaay mi ma dajeel ci jàkka ji bët yi ma ko doon xool ak li ma doon wax ndax loolu laa dund ak moom wala déet bu dul moom rek yàlla nee na jéppi naa la ñu yéenante jàmm ci suñu biir di wax lu rafet bu sëriñ Cheikh mii amee teraangaam ma yéene ko ko te xam ni kiñaan ñaan fanqul muur yàllaay maye dafa am feebar yoo xam ni man mën nga dem ci médecin mu diagnostiqué feebar bi bindal la ordonnance nga dem ci pharmacie jënd ko naan ko gis ay résultat waaye dafa am loo xam ni mooy xolu doomu aadama bu xasee ba feebar nitu yàlla rekk la ko mën a fajal te boo bàyyiwul nitu yàlla yi nag jël sa làmmiñ boyal ko ci seen kaw safara rek nga jëm ala kulli xaal. luxumul awliyaa masmuumatun loolu la ma sëriñ Cheikh di waxaat léegi. te moo di dëgg kon nañu delloo si xel yi delloo si sago yi. bi ma sëriñ bi nee naa waxtaan ñu indil ma benn programme ni ma fii la ñuy war a waxtaanee ma xool ko mu xat torop te man mënuma tricher. ma ni su ma demee naa waxtaan rek loo xam ni naa ko préparé bind ko te du génn yonent bi. lépp lu waay wax ci moom doyul moo tax damay wax ni mbokk yi nañu nañu yàlla wuutu ci fayal ñu Cheikh Al Hadj Malick ak njabootam am na am na xasida bu sëriñ haat yi def boo xam ni yéen a ngi koy way way woo xam ni tabaarakallahu ahsanul xaaliqin yallaahu an najziyan waaye abdu laalal waay منزيا لشيخ سيدنا العاد مالك بما يرضي الله يا الله عنا الزيان لشيخ سيدنا العاد مالك بما يرضي الله بلغ له كل مول مرقيه أعلى مراتب أهل الله يا الله يا الله عن الزيان للشيخ سيدنا الحادي مالك بما يا الله ووفقنا أهله بمعد جودك للقبول يا ربنا يا الله يا الله يا الله عن نسيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله ووفقنا أهله بمحض جودك للقبول يا ربنا يا الله يا الله يا الله عنك لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي مما يفيد عليه من معارفه ومن مواربه يا الله يا الله يا الله عن شيخي سيدنا بما يرضي هادنا مما يفيد عليه من معارفه من مواربه يا الله يا الله يا الله عنا الديان للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي